Heavyweight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 ka ne ko dëqat rendi ki ray mu ngi wuyoo ci turu ambay kañu ray mu ngi wuyoo ci turu ajaw ñoom ñaar ñépp doon liggéey foofa ca seeras ne ñu nag ñoom ñaar fan yi weesu seen diggante xawoon naa ñagas ba ay tëkkonte amoon ci ba sax ne ñu doon liggéeyee doon dox tànku jàmm ak di leen jubóole waaye nag li ci mujj ama doy war ndax dañoo mujj jàppante ambay mi nga xam ni nee ñu tuddee na doom aajaw jël paaka ne deqet ren di aajaw boobu sawaay nag bi mu defee li nu mel nee ñu dafa daw waaye mujj nañ ko teg loxo ca ngeexoox ca boori mbuur fi mu ne mu ngi ci loxo yoon ma ne ko dugg nga ni rubba ajaw mi ñu faat nag nee ñu mi ngi wàcc ci ginnaaw ñetti soxna ay waay ma ne moo tax ci mer la saytaane di porox ndollu dal soppi nit lu gën a yees ma te nag nit bu munul téye meram moom ak bombe atomique ñoo yem moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax waay waay waay bu ma nan duma takk ñaareel lu ni mel donga ko waral ndax yenn jigéen yi moom ku yër ba xool xalaat gis ne ñoo gën a dangereux bombe atomique ci biir kër bu ñu meree def musiba bu ñu fiiree def musiba ma ñaareel bi li mu def jéggi na dayo de ndax dafa posene jëkkër ji ak aawo bi ba mujj ca urgence bopp jëkkër ji mu ngi wuyoo ci turu M Dan Fakha ci ab immigré bu nekkoon ca France aw bi di beneen victime bi mu ngi wuyoo ci turu MD at yi toll ci fukki at ak juróom-ñeent ñoom daal bu dul woon ndimbalu yàlla kon noon fi mu ne maara deetaali mbir moomu nag nee ñu nii la demee ñaareel bi di wuyoo ci turu F dafa aye doon togg ndaw si nag bi muy togg ndekete préparé na musiba bi mu war a def ndax dafa jël ab bouteille dëbb ko ba mu makkuru mbox dal di koy jël jaxase ko ci togg gi servir ko jëkkër ji ak aawo bi noonu bi ñuy lekk jëkkër ji yëg ne ci ñam wi am na lu ci rax naka noonu njortam ñaaw ci la taalee portable am nit bu mu nitee càmbar xool xoolaat gis ne ñam wi toj paquetu butéel a ko fees del ci saa si la ne aawo bi tiyel sa loxo ci ñam wi te kat aawo bi nee ñu dafa ëmb ba am juróom-ñetti weer waay waay waay ñaareel bi yéen nekk li doy waar nag mooy ndaw si bu mu toggee ba noppi dal di bi ne ko kaay lekk dafa ne suur na xiiful <laughs> ma ne ko togg sa togg ba pare lekkoo ko <laughs> wóorul de mais sa xonta moo tax it jëkkër ji def na li mu war a def ndax bi mu wooyee police bi ñu ñëwee ci kër gi càmbar neegu ñaareel bi dal di koy visiter xool ci la ñu gis am mbuus boo xam ne ci la làqoon tojitu butéel yi bi loolu amee na ci la ñu koy yóbboo ca commissariat central bu Tamba bi ñu ko lankatee lañ bët lañ bët xool dal di koy gësam yëngal ñaareel bi mujj naa nangu ne moo posone jëkkër ji ak aawo bi <laughs> ma ne leen nii laa leen di wax de tàkk ñoo xam ne bu ñu ñëwee ci kër gi kër gi comme guerre ñii di suul ñii di posone ñii di man di ci benn jabar laa yem mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz